assalamu gars yi vocation ko la maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp gars yi. Naby Vision xool leen RTS bi waa RTS nee nañ dañuy kii xaw lan déglu leen li ñëwaat. leen di nuyu ku ci nekk ak ak santam di en tant que coordinateur du collège des délégués de la RTS. maa wo agent RTS yëpp ñu mobiliser wu demain inshallah mardi demain mardi inshallah. mobilisation exceptionnelle pour faire face aux mesures arbitraires yi nga le directeur général Pape ALENIA, qui est koy jël ci RTS yeen contracteurs yi yeen contracteurs, nga xamné décisionnaires yi yeen nga prestataires yi bu kenn dess ne ñepp ci on va lui barrer la route Inch'Allah, ce mardi 2 juillet ndax ñu tok di continuer mu né day wañi salaire yi déjà wax na bi nga xamné ressources humaines bu changé li nga xam ne mooy bulletin de salaire yi mënuñu toog cent mille francs yi nga xam ne mooy eh, avance tabaski mu dagg ko mënuñu toog muy coupé ay ligne téléphonique mu jël ay contracteurs yu def deux ans waroon leen recruter ñëpp mu dàqale ay techniciens ay cameraman ay journalistes ay ay ay agent administratif ñëpp mu dàqaleen en moins de deux mois mënuñu toog mu jël ay prestataires yoo xam ne trois cent mille lañ doon fay yóbbu leen ay cent mille francs mënuñu continuer di toog Pape Alé Niang di di yàq kër gi

ba Racine Talla di waaj a dem salaire yi mu yokkoon yépp ñun waxoon nañ ci ba pare ñim recruter woon te waru leen a recruter ñun waxoon nañ ci ba pare privilège yi mu leen defaloon te waru leen ko defal waxoon nañ ci ba pare xamoon ngeen ne Pape Alé bu ñëwee dana xoolaat yooyu yépp dana wàññiwaat salaire yi mu gonfale woon dana wàññi ñi ñi mu jëloon te tegu leen ci yoon dana wàññi privilège yi mu leen tegoon tegaloo da ngay xool RTS dégg naa sax. Naby Vision. 30 juin. dañ daan seddo ben 200 millions bo xam dañ koy seddo te teguñu ko fenn tab ale tey ko ñi leen di jox 100000 francs par tabaski pour lan mais wax mu naan RTS suñu kër la waaw waaw yéen ko mom mom waye sénégalais yi moomuñu ko dé mané bu ngeen génné naan da ngeen di grève xaw da ngeen di mars bu ngeen dajé ak sénégalais yi ci mbedd mi sénégalais yi leen ni ñuusal seen bop ba ngeen xol ben place sa ñaaway bu reuy wa mbokk yi parce que ñu leen di ziar wa ben jub jubal jubbanti waaw li li ñu ñëw yéen incha ñu bay ci xel moy déguerpissement yi comme ni ñu ko waxee woon euh, na ko ministre de l'intérieur contrôler sinon nañ ko waxee woon rek dañ ko infiltrer def la leen neex taj place jàmm sacc xaalisu nit ñi di woné né ay agents municipaux lañ fekk du loolu ay sabotekat lañ mën nañ ko nekk sax mais ay sabotekat lañ li ñu def pas aléna nañ euh, def na lu courageux mais na gëna foncer foncé ndax ñiy jalgati ak ñu doon jël ligne yi di ci woote nan leen yóbbu ci yoon bu leen nangu li ñu rek bàyyi noonu gis nga Mama mu Niang loolu mu yëngal ma ngi ko hérité ca sous commande la nekk. Naby Vision waaw ca Racine Talla donc loolu lañ déroulé xam nga ab ab indemnité cent cinquante mille nga yóbbu ko huit cent mille mooy saboté saboté wala lay ne li ci des nag mooy nangu rek bàyyi dafa doyul nan leen yóbbu ci yéen jàpp leen ñëpp tëj leen voilà jaa ngeen jëf. xam maa ngi leen di ziar ñu déglu ñii.

ku ànd ak ñoom am jàmm di jot ci privilège yi ku àndul ak ñoom doo am jàmm ñu mettre le frigo wala ñu yóbbu la ci ay dëkk yu sori man dama ci xam dara parce que dama bëri ñoo xam ni ay xarit yuy liggéey RTS tey kii di wax nii flèche bi nii eh, flèche bi si ki jëm nii maam ñaam yi mais ñun xam nañ ko ñoo dëkk Saint-Louis Nabi Vision. pratique yu bon yi don def si magistère Racine tala. est ce que war tak tax sa tay mu jomm gën di wax fi ngeen toroxal ben dam tudd Daba Diallo ngeen woo pour mu ñëw ànd ak yéen mu bañ ngeen jël ko génne seen décision bu leen neex sànni ko maatam moment bi nga journaliste mi ngi ko muy Zeyna yaayam feebar mu nekk seul jigéen bu koy toppatoo ngeen génne seen décision ndax ànduloo ak yéen ci syndicat bi ngeen sànni ko Matam mu leen demuma parce que bi muy signé CDI CDI bi mu signé woon mooy cinq li la war a resté ngeen sanctionné ko téye salaire am plus de 4 mois jox leen ko ko muy galère galère bu metti teewul ba léegi déggu leen ko muy yuuxu. te yow Mama Niang yéen ñaar ngeen bokk même quartier daaru bi ngeen dëkk souteniroo ko dem di ànd ak Racine Talla tey jii ngeen am taxaw naan danga am lu ngeen wax. pression yi ngeen doon teg yeneen di nekk RTS di def benn am seen nekk seen benn bambulaa moo jeex dëkk bi dañ koy jubal ba mu jub kocc. Naby Vision. Pape Grand de tout cœur avec vous job rek.

dañuy def li ma doon dañuy ok d'accord. D'accord, D'accord. personnel RTS wala man maa comprendre lii de. <laughs> lii est-ce que na vingt personnes <laughs> RTS ak ni mu toll boîte bi ni mu personnel bi lii la. Naby Vision. ñii ñoo ñoo ñoo ñoo ci affaire yi <laughs> yéen seen seen manifestation bi wéet naa xumb na de xumb na laay wax sax maa ngi leen di minimiser te waruma leen a minimiser waruma leen a de waaye Pape Alé def na benn kii moom tamit leeral na de billaay bi soobee yàlla léppay dakk

bi nga xam ne sii dafa jàkkaarloo ak Macky seen effectif bi tuuti na dem leen wuti ay pël Fuuta wala ay guinéen wala ay gambien wala xamalan pour ñu renforcer leen ndax xam naa au Sénégal moom niveau au niveau Sénégal moom pour ngeen am fa ñu leen dolli moom du yomb mais da ngeen maa def ay ree sax seen lii ñàkk na xorom ngeen takk seen morso yu xonq yi ngeen a fit mel ne ku gis meret. Naby Vision yéen a ñàkk personnalité. <laughs>